الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين allahumma axrijna min zulumaati lwahmi wa akrimna bi nuuri lfahmi waftax alayna bi maxrifati lcilmi wa xasin axlaaqana bilxilmi wa saxil lana abwaaba fadlika wansur alayna xazaina rahmatika yaa arhamar rahimin yaa rabbal alamin mbokk yi bàyyi xel ci Sud seen rajo assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ginnaaw bi ñu santee suñu boroom subhaanahu wa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 di ñaan borom bi subhaanahu wa taala mu boole ñu jéggal di ko ñaan mu nangul ñu sunuy jaamu te jéggal ñu sunuy rëcc suñuy rëcc ñoo ngi nuyu soppee almisbaax yëpp di bég lool ci ni ngeen di ànde ak ñun jotaay bi saa su nekk def ko muy seen jotaay yu wéttal waaye def ko jotaay bu ñuy nafare lu jëm ci suñ mbiri diine ñoo ngi leen ciy siyaarewaat bu baax ñaan borom bi subxanahu wa taala mu yokk tawfiix ñaan ko mu yokk jàmm ci réew mi yokk ko ci réew yi ñu wër jafe-jafe yeeg mettiwaayu dëkk beeg yu bari yoo xamante ne bari nañu koy jàmbat yal na ko borom bi subxanahu wa taala gën a yombal gannaaw jafe-jafe gu ne yombal a cay topp ñoo ngi leen koy ñaanal di ko ñaanal sunu bopp. mu mel ne ñi ngi façon yéene ñëw waxtaan ci lu jëmaat ci wàllu famille maanaam euh, wàllu wàllu sëy wala àqi woy dencante ak yi nga xam ne moo ci aju ndax li léeg ñu teggee ci suñu baaraam ab diir waaye buñ demee ba dellu siwaat dellu siwaat ci waxtaane waat suñu bopp waxtaane waat li nga xam ne itam ñoo ko bokk mu mel yi nga xamante ne day sosu ci pénc mi li ciy jag ak li nga xam ne moo jagadi lépp day sosoo ci e, kër gi foofu nekk delluwaay bu njëkk bi waaye day dellu si waatit ci diggante ñaari way denc ñi dencante yi te borom bi subhaanahu wa taala moo digal jaam ñi ne leen na ngeen di sàmm tey matale pas-pas yi kóllëre yi yi nga xamante ne da ngeen koo séq te daa wax ne kóllëre gu réeree gu diis moo dox ci diggante ñaar ñi nga xam ne ñaari way dencante lañ boo demee ci suratu almaida ca aay ju njëkk ja rek borom bi daa wax ne yaa ayuha alladina amanu awfu bil uqudi waaw yéen ñi nga xam ne yéen a gëm mel ne ku ne dee leen matale pas-pas yi maanaam engagement yingeen jël dee leen ci góorgóorlu di ko matale dee leen ci góorgóorlu di ko matale yi jëm ci wàllu sëy bi yi nga xam ne moo jëm ci yeneen yu dul moom buñ demee ca sóoratu nisaa yi ca aaya vingt borom baa ngay wax naan wa axas na minkum mi faaxan xaliza maanaam ngeen fas ci seen diggante ngeen fas ko mu nekk buum goo xam ne buum gu dëgër la te boobu ma ngay wax sëy pas-pas bu rëy boobu nga xam ne moo dox ci diggante ñaari way dencante mu bokk ci war-war yooyu nga xam ne moo am te mooy pas-pasub sëy bi ay àq yoo xam ne day dox ci diggante ñaari way dencante yi am àq yoo xam ne boroom kër beeko moom am àq yoo xam ne soxna see ko moom am àq yoo xam ne sëy bee ko moom kenn ci ñoom ñaar moomu ko ku ko soxla rek da nga cee war a jot maanaam ñoo ko bokk àq yooyu yi nga xamante ne bu ma ko doon jiital di wax àq ji nga xam ne moom la boroom kër am ci soxnaam ak àq ji nga xamante ne moom la soxna am ci boroom këram doo xam ban moo ci gën a màgg ndax àq yépp a màgg waaye euh, maanaam ñoom ñaar yemuñu daa am koo xamante ne moom la alxuraan wax ne ko na jiitu ki ci des topp ci moo tax buñ demee ci suratul baqara aaya deux cent vingt-huit suñ borom day wax ne wala hunna mislu llazi alayhinna bil maxruufi walirrijali alayhinna daraja wallahu azizun hakim kenn ku ne ci ñaari way dencante yi am na àq ci moroomam kenn ku nekk am na rafetal gum war a séq ak moroomam am na lu ko war ci moroomam waaye borom bi nag góor moo féete kaw féete kaw gi du ngëneel du graweel waaye daa mënta ñàkk daa mënta ñàkk rek kilifa daa mënta ñàkk ku jiitu l'islam tërale ko noonu bu ñëwee ba coppeeku jamonoog tëraliin yu bees yi bañ jàpp ne ñoo yem wala ñu jàpp ne dooma jiitu wala supérieur ma wala doo sama kilifa jafe-jafe lay daal di tàmbalee am ndax kii day xëcc jëm fii kii xëcc jëm fii day feeñ rek-rek ba ci yi ñi dogal ci kër gi ak jeexital yi nga xam ne moom lay def ci njaboot gi moo tax àq yooyu nga xam ne euh, day àq yoo xam ne borom kër bi da koo am ci soxnaam mu bokk ca àqu euh, bànneexu ci moom nga xam ne day war ci soxna si mu jébbal boppam boroom këram maanaam ci misaal mu bàyyee ko boppam nangul ko kilifteefam nangul ko kilifteefam damay faral di wax sax ne soxna day mottali kilifteefu borom kër borom kër gi boroom kër gi waroon naa mën a doon koo xam ne dëgërul woon lool waaye soxna si dëgëral ko dëgër gi li ma bëgg a wax mooy doon kilifa doon koo xamante ne ab leader lay doon koo xamante ne ku am taxawaay lay doon ci pénc ma ndax ni ko soxnaam di taxawoo bu dee ci colam la muy sol jëm ca mbooloo ma bu baaxut mu taxawu ko ba mu sol lu baax lu mën a dem ca mbooloo ma su fekkonte ne lu mu mën di doon rek dana ko feeñal ne ko yaa ma yilif te gannaaw yaay sama kilifa waroo doye di ci pénc mi waroo doye di ci société bi te yaa yilif xale yi itam yaay seen baay kon war nga leen koo mat loolu nag da koy njëkk a nangu da koy njëkk a defee ci def ko muy kilifa def ko muy kilifa mooy tax léeg xale yi def dara nga man koo faj sax ne bàyyil ba seen baay ñëw bàyyil ba seen baay ñëw yaa ngi woon ne kër gi daa am kilifa te mooy sama kilifa te mooy sama kilifa moo tax lépp loo xam ne aju na ci bunt boobu bunt bu yaatu la boo xamante ne biñ ko tàmbulee soppi gis nañ ci yu baree bari yoo xam ne mi ngi ciy tàmbulee am àq ji ma wax léegi tane ne àqu bànneexu ci moom su fekkente ne sëy bi la ci lal bi waxtaanu lal wi ngeen baal ma ak yi ci aju loolu sax léeg dañ koy yóbbu ci àq yi nga xam ne sëy bee moom maanaam soxna si bu ci bu ko soxlaa euh, na ci jot boroom kër bi bu ko soxlaa it na ci jot li ci am solo rek mooy kenn ku nekk na bàyyi xel moroomam ci fànn goog ca koy waajale ak ya nga xam ne moo ci aju ngeen baal ma moo tax euh, yonent bi sallallahu alayhi wa ci xadis boo xam ne abi hurayra moo ko nettali wax ne isaa daa rajulu imraatahu ila firashihi falam taati fa baata xadbaana alayhi alayha laxnat al malaika xata tusbix yonent bi ne bu fekkente ne góor dafa sàkku soxnaam ca lal ba soxna sa bañ malaaka ya fanaane koo mere fanaane koo rëbb ba ba bët set di jot ba ba bët set di jot kon day indi wart wa maanaam wareefuk topp wareefuk topp gi nga xam ne moom la eh, moom la soxna war topp boroom këram ci lépp loo xam ne du ak ak topp yàlla la waaye loo xam ne du mooy yàlla rek da ko caa war a topp ak mooy yàlla daal lañuy bañ mu topp ko ca moo tax loolu bunt bu yaatu la bokk na ci àq yi nga xam ne boroom kër bi war na koo am ci soxnaam mooy àqu yar ko la ñuy wax yar mooy motli ab yaram motli ab yaram moo tax ma ne góor góor kon war naa góorgóorlu ndax kiñ lay jox ñu ne la na nga motli ab yaram boo melut ni nga war a mel musiba am te ñun nga gis ci suñu question yi ku ne sama borom kër da du julli sama borom kër daa fonkut julli sama borom kër nangam nangam léeg-léeg ngis borom kër boo xam ne yi mu war a tere xale yi yëpp moom noppi ngir def ko ci penc ma ñëpp di ko gis loolu doye di la baaxut léegi mat gi ñuy soxla ci moom mooy tax eh, alxuraan doon wax ci surut nisaa yi aya 34 wallaati na nusuusahunna fa'ibuhunna na wahjuruhunna fi lmadaajici wadribuhunna fa in ataanakum fala tabqu alayhinna sabila borom bee ngi ñuy wax yi xew ci suñ biir kër yi te xam na ko ndax kër gi du dëkk di neex soxnaak borom këram lu ñu juboo juboo wala ñaari nit ñu nekk rek léeg mu am yoo xamante ne mën nañ cee bañ dëppoo wala léeg-léeg ñu am yoo xamante ne dox na ci seeni diggante borom subxanahu wa taala nee na bu fekkente ne da ngeen a ragal ak féewaloo ci seen biir dara nar a xew nga xamante ne soxna si def na loo xam ne jaaduwut tere nga ko ko tere nga ko ko wala bok merloo na la wala loo xamante ne waru ko woon a def suñ borom subxanahu wa taala bi muy indi solution bi lim njëkk a wax ci nga mottali ab yaram dane la na nga ko waar na nga ko waar faisuhunna waar ko waar ko mooy nga delloosi ko rek nga delloosi ko bunt bu yaatu la. li gën yow mi boroom kër gi nga jéem a def nga jéem koo taxawee bàyyi ba suuf sedd yow moom wax di yàlla am nga temps waxtaan foofu boo xamante ne mën ngaa wax li ngay wax bu ko defee nga delloo si ko li nga def nii jaaduwut bëgguma woon nga def lii ndax li ci mën a juddoo nangam ak nangam ak nangam wax ju nooy waaw wax ju nooy wax joo xamante ne nii du dëgër du dëgër mooy faa ngi sa na boo ko manee moo gën boo ko mënee moo gën bu dee du boroom kër bu mën a waaraate a ah, mu wut koo xamante ne ni moo ko waaral waaye loolu na mujj na mujj euh, ndaw ñu baree bari léegi seeni sëy li koy yàq dañuy gaaw a dugal intervention ci diggante bi sëy boo xam ne tàmbuleegut nga daal di ciy dugal fukki fukki intervention ak juróom day mujj yàgg seeni problème dootu leen ko mën a régler ti te ay nit bu nekkee dañoo war a jàng di jéem a régler seeni problème seen bopp di ko jéem a régler seen bopp lu am solo la alxuraan ne mi ngi mi ngi lay won yow mi nga xam ne yaay góor kilifteef gi nga war a am kon xanaa yow du yaay indi kon problème bañ lay war a waar ndax kon problème am te yàlla dafa mel ne dafa jàpp ne problème bi yow mi ku góor waro koo indi yow mi góor waroo am melokaan muk woo xamante ne yow la jubbanti waaye jafe-jafe daa war a am ci kër gi yow yaa war a taxaw rek la ko moo tax mu ne boobaa fa'izuhunna waar leen leen bu waaraate wi jëriñu dara mu ne kon wahjuruhunna fil madaaji'i gàddaay leen ca lal ba mu ngi mel ne yàllaa ngi naan la meral waaye nag bum génn néeg bi boroom kër bu fekkente ne bi meree soxnaam ñëpp yëg nañ ko lom fanaanoo ca néeg ba biti bi ñëpp xam nañ ne biig neexut ñi ci ay lañ nekk mën naa gën a jafeel yëf yi waaye na fexe ba Euh, li la naqareeg li neex yem ci moom képp loolu tax damay faral di wax ne ci mat la bokk am na ñoo xam ne buñ mere woon kenn ñëpp xam ne dañ leen a mere seen xale yi dañ dóor ñëpp oto bi sax buñ ci yéeg dañuy faraape porte bi te porte oto bi defula dara bu yàqoo yaa koy defariwaat waaw di accéléré ndax da ngaa mer jëru ko di moom moom mi ngay accéléré rek teel teel jéeg yëpp du yëg ne yow mer nga. Euh, moo tax boo dawalee sam xel ki nga ko siqal rek ngay fexe mu xam ko moo tax yàlla ne gàddaay leen leen waaye fan fil mabaaji'i xadis bi ma jàngoon léegi soxna si moom lislaam da koo wax ne ko bu mu tere boppam boroom këram ku góor ki nag may nañ ko ko mu def ko su fekkee yar ko moo tax su fekkee yar ko moo tax moo tax ci bunt bi ñi mën a jàngale dañuy faral di wax ne góor war naa mel noo xamante ne bu meree njabootam ñu yëg ko maanaam bu toogoon këram ne cell waxut ñu yëg ne kat kër gi du neex ndax kii tey am na lu ko naqari kenn ku ne ne fii war a régler boobu kilifa day fexe njabootam bëgg ko miin ko te duñ ko yab miin ko duñ ko yab mhm. miin ko lool waaye nag duñ ko yab mooy tax bu bu bu xañee boppam mu metti ci ñoom bu leen xañee boppam mu metti ci ñoom am na ci saxaaba yi ñoo xam ne dañ doon dem xare ñoom ñu dëpp demuñu ak ya ca xewoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mere leen waaye alxuraan ba leen koy nettali ba ñu koy nettali dane suuf si daa xat ci ñoom maanaam yonent bi di leen mere mu mel ne adduna daa xat ci ñoom far ndax xañ gim leen xañ boppam mere leen waaw xata ida daqat alayhim al ardu bima raxubat waaw nga xamante ne suuf sa daa xat ci ñoom ak li suuf di yaatu yaatu ndax lan yonent bi moo leen mere problème yi rëy ci ñoom ba mel ne suuf si daa xat ci ñoom borom kërit bi nga xamante ne dafa mel melokaan wi lislaam bëgg ndax buñ naan la na wahjuruhunna fil mabaaji'i te fekk mer a tax bu mer amut kon wahjuruhunna fil mabaaji'i wërta am na ci diggu guddi gi ak wax ju bari ji ak yeddaate bi bu problème amee bu problème amut wërta bari góor te bari am na jigéen ñoo xam ne bala ñoo mën a jàmbat dara guddi jot guddi jot dañuy ñurumtu rek ñurumtu ñurumtu mooy xam nga daa am waxtu ak xultu waaye di ñuuramtu nangam de war nga cee wax moom di ñuuramtu rek san sama nangam ji sama nangam ji sama nangam ji am koo xam ne bala laa mën a wax soxla nga soxla ko waaw bala laa mën a wax benn bëgg-bëgg bu mu waroon rek nga soxla ko nga xam ne li muy wàññi kenn xamul nu mu toll alxuraan noonu la jàngalee wàllu woowu ba mu yaatu bokk na ci àq yooyu nga xam ne borom kër bi war na koo am ci soxnaam euh, mooy soxna si bum dugal këram mukk koo xam ne jëkkëram da koo siptone maanaam koo xam ne neexut jëkkëram jigéen du am xarit yu góor yoo xamante ne neexuñu sa jëkkër buñ neexee sa jëkkër sax jërta ta baril buñ neexoon sa jëkkër sax jër ta baril waaw sa jëkkër ji nala doy sëkk ab xarit waaye càmmiñ yu baree baree baree baree baree bari wootem téléphone whatsapp ba génn dem gisee rek waaw bu waxee nga ne ko da fiir ñu ne daa compliqué ñu ne sa jëkkër ji xanaa da laa lu wax nga ne ko xanaa da xanaa da nga maa wóoluwut ëpp naa def du noonu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boo xam ne abi moo ko nettali nee na laa yaxillu lil mar'ati an tasuuma wa zawjaha shaahidun illa bi isnihi wala ta'zan fi baytihi illa bi isnihi yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na dëgganut ci jigéenu jullit muy koor muy woor koor goo xam ne du fe du kooruk farata lu dul ne da caa am ndigalul jëkkëram xoolal ndigal ni mu amee solo am na couple yoo xam ne boo demee séq nañ lépp ba mu des euh, joxe ndigal moom bu la santee dara bu la neexee bañ moom day mel ni rek am nattu nga ci moom wala moom am nattu la ci yow ngeen ànd malgré loolu du këru jullit këru jullit wërta mel noonu ni lislaam jàngalee sëy ak li ci nekk ci yiw it dafa ëpp loolu fuuf moo tax wërta demee noonu moo tax wërta demee noonu yonent saa sallam ne dëgganut ci jigéenu jullit muy woor euh, koor gudut wooru maanaam weeru koor wala weeru farata lu dul ne da caa am euh, ndigalul jëkkëram waaye dëgganut ci moom itam muy fat kenn këram mu fay entrer kenn lu dul ne da caa am ndigalul jëkkëram waaw bu fekkee jëkkër ji nag loola da koo neexul moom na dakk na dakk lislaam bëggewu ko noonu waaw bul ne nag kër yaa moom sa kër waaye kon ma génn dem gisee ji ba bërëb sàngam ak danga maa wóoluwut ak li ngay def nga ma bëgg a jiiñ ak yu kenn xamut yooyu yëpp daal euh, danga maa wóoluwut wóor rek moo ko gën waaw muy góor wala muy jigéen lii mooy euh, wax yaxe xadis bi euh, góor it mën na ko cee déggee ba góor góorlu kam te laayal ba nga xamante ne bu demoon bu bëgg a takk seneen soxna te lislaam may ko ko mu def noo xamante ne nii euh, du ngoro yoog moom ngoro gu fis goo xam ne soxnaam da koy yëg da koy xam nga koy mettital naan ko lislaam moo ko sant bu deful li mu war a def ma def ko feneen toog ci kër gi di téléphoné wala ngay wax ay yoo xamante ne jëmut kër loolu itam bokkul ci tey jii lislaam lislaam jàngewu ko noonu jàngalewu ko noonu na ci teggin yooyu soxna si bañ a génn kër gi lu dul ne daa am ndigalul jëkkëram jigéen ju am boroom kër buy tukki day tàggoo buy tukki day tàggoo buy génn day tàggoo buy génn day tàggoo waaye ma dem fii te ñëw rek te yëgu la nga xam ne sa borom kër day laaj nga naan damaa génnoon waaw saytaane mën na cee jaare ba yàq lu bari ci seen diggante nit day tàggu kilifaam bu boobaa boroom kër day soxna day tàggu boroom këram day tàggu boroom këram boroom kërit day wax soxnaam maa ngi dem xëy na tàggu boroom kër gi mooy boroom kër am na sañ-sañu bañ. am na sañ-sañu ne toogal ndax responsabilité biñ teg ci loosam soxna si moom bu mënta bañ it am na nag àqu yëg loolu moom ci ci liy rafetal aw la bokk ndax wala hunna mislu lasi alayhinna bil maxruufi kenn ku nekk li la war ci njekk ci sa moroom lu tol noonu war na ko ci yow lu tol noonu war na ko ci yow waaye nag wali rijaali alayhinna daraja góor nag mooy ki nga xamante ne mooy kilifa kër gi bokk na ci àq yooyu soxna si am te amal ko boroom këram mooy mu sàmm boppam sàmm boppam sàmm alalam jigéen ju am boroom kër day sàmm boppam waaw bul nekk mukk fu sa boroom kër nekkut di bëree geneen góor waaw donte sequ leen dara nga naan sama xarit la waaw uh, damaa tudd bëree gi ndax mu gën a tuuti waaye gën a ñàkk personnalité lool te soof bu gënee jàll gën a jàll nag musiba gën a am waaye daal si jëmm ji na ko ko sàmmal nanga ko sàmmal waaye nanga nga ko sàmmal alalam boroom kër day sàmmal soxna day sàmmal boroom këram alalam ndax daa mel ne lislaam ni mu tëralee buñ ko déggee woon noonu jigéen ji mooy ëpp lu muy nekk ci kër gi comme moo lu mu nekk ci kër gi nag lislaam ne ko danga sàmm kër gi na ngay fay làmp yi dégg nga nangay ngay xool robinet yi buy toq nga tëj ko waaye na nga sàmm sa alali borom kër sa kemtalaayal kàttan nanga euh, nga na nga ko na ko na ko wekk na ko jàppale na nga ko def sa kemtalaayal kàttan bokk na ci euh, warteef yooyu mooy di xitmaal sa borom kër boo ko mënee di ko xitmaal loolu euh, du aada dong waaye diine la diine la doxoon na ci diggante yonent bi sayyidatuna Fatima di doomi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak borom këram ba nga xam ne moom la ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mayoon di sayyidina Aliyun nga xam ne euh, dem na ba Fatima liggéey bi metti ci moom mu ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sàkku ci moom ngir mu may ko ay jaam ñoo xam ne ñoo koy dimbali waaw ñoo xam ne ñoo koy dimbali ca liggéey baag ya nga xam ne moo ca aju ak yooyu ak yu baree bari la yoo xam ne mënoon nañ di ko lim di ko lim ba def ci ay waxtaan yu bari te du jeex waaye dellu si waat ci fàttali ko dana baax ndax yi dox ci suñu diggante yu mel noonu moo tax waaw yi dox ci suñu diggante yu mel noonu moo tax gën naa ëpp loolu bu ma la ko doon tënkal damay wax ne daal dafa bokk ci àq jigéen mooy topp boroom këram topp ko topp ko dégg ay ndigalam loolu nag dafa mel ne ñaari baat la waaye dafa ëmb lépp dafa mel ne ñaari baat la waaye dafa ëmb lépp moom laa doon sara léegi waaw moom laa doon sara léegi topp ko déggal ko déggal ko waaw nga xamante loolu mooy mooy sàmm sàmmal ko sàmmal ko ni nga meloon ba mu gis la ba bëgg la nga sàmm ko ba doo soppeeku waaw doo ñëw bàyyeeku doo dugg ci yeneen doo indi doo indi benn benn jafe-jafe ci fànn googu loolu euh, ci mat a bàyyi xel la bokk te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale na ko te jigéen loolu daa bokk ci li koy may àjjana jigéen joo xamante ne sàmm na boppam topp ndigali boroom këram julli juróomam woor weeru kooram aj màkk bu ko manee bu faatoo dugg aljanna bu faatoo dugg aljanna lii nag ak borom kër bi nu mën a mel moom waaw boo fi nekkee naan borom kër boo xamante ne nangam la mel kooku jër ta topp waaw borom kër bi melut ni mu war a mel waaye yow it daa mel ne defoo li nga war a def yow góorgóorlul ba mel ni nga war a mel góorgóorlul ba taxawee ni nga war a taxawee góorgóorlul ba dunde noonu sa diine moo tax mag ñi ci suñu aada lu ne laxas nañ ko ci ndax bëgg nga def ko ne liggéeyu ndey añu doom boo ñu liggéey sa jëkkër yekk sa doom say xaare la boo ci juree doom jam nañu la yu mel noonu ñu wax la ci yu bari ndax bëgg nga góorgóorlu luñ la def nga muñ ko luñ la def nga muñ ko ndax yëg ne yow dangaa liggéey si dangaa liggéey si te nag loolu am na ñum jig ñu ci jaaroon ba jàll jig na leen te indil na leen résultat yu baree baree baree bari ci seen dund yal nañu ko yàlla boole defal def jàmm ci kër yi def jàmm ci kër yi sëy yi moom moo war a neex ndax moo war a doon euh, milieu bi nga xam ne mooy dindi jafe-jafe yi ku sonn ci sa liggéeyukaay boo ñëwee sa kër war a noppalu ku am ay problème fa ngay liggéeyee boo ñëwee sa kër problème ya jeex ku am ay détails ci mbedd mi boo ñëwee sa kër détails yi daa war a jeex waaye léeg-léeg biir kër yi ci boppam mooy barabu détails yi mooy barabu problème yi nga xam ne am na koo xam ne yàkkamti naa xëy am koo xam ne bi mu wàccee yàkkamti wute ñibbisi